ab mbiru complot la Pape nervi boobu moom nee na moom jot na këyitam yàgg na moom duma polémique moom parce que kenn musuma dégg ma wax ci waxam wala wax ci doomam wante nag lu ëpp tuuru man tamit ay doom man tamit ma yor tamit ay mbokk yor tamit ay ay ay man tamit ma yor tamit ay soppe dama ne moom xaw ma chiffre vingt cinq lan lay représenté ci ñoom wante moom dama bëgg moom mu xam ne ni ko doomam nervi la woon te du xas du xas te du saaga doomam sàmba la woon parce que ku bàyyi sa kër nga yëg ci oto jox la vingt cinq mille francs ne da ngeen di dem ci ay kër personnalité politique pour songaleen loolu ab mbiru wëyu la ab mbiru bandi la ab mbiru nervi la ab mbiru mercenaire la beneen bi ñoom bañ may topp man nee nañ ma su ma fayoon sax vingt cinq millions yi daanaka waxtu yu sax moo nañ ko fay première instance ma ne man su ma amee vingt cinq millions ma jël ko jox ko waa Empire des enfants wala ma jox ko SOS village des enfants moo ma gënal ma leen di ko jox vingt cinq millions dama gisul lan lañ fi liggéey dama fi gisul lan laa leen def ba man mën a jël suma xaalis leen di ko jox ci dàmpaay Macky Sall bu muy ñëw suma kër ba xew-xew bi am lu mu wax ñëpp dégg nañ ko nee na Barthélémy Dias dañ ko tooñ nee na Barthélémy Dias dafa défendre nee na benn responsable moo fi am mooy état du Sénégal état du Sénégal dafa am assurance assurance su état du Sénégal dañ koy wooye agent judiciaire de l' état kon état du Sénégal su tooñee moom assurance am mooy fay kon tey du président Macky Sall mais président de République ah wax dëgg yàlla nag bés bu ma gisee état du Sénégal di indemniser nervi yi man nag ma xam ne nag Sénégal nag ah, dëkk bi nag wax dëgg yàlla nag nañu dem ci beneen dëkk dem dëkk fa. parce que nag nervi yi bu ñuy indemniser ah sañ na ko naam sañ na ko parce que moom tey daanaka moom tey yaakaaratu ko ci ay pa tey yaakaaratu ko ci APR président Macky Sall tey yaakaaratu ko tey ci Benno Bokk Yaakaar daf ko yaakaaree ci lan ci nervi mois de mars gis ngeen lu fi xew yéen ñëpp da ngeen actualité bi rek gis ngeen lu xew Ziguinchor Ousmane Sonko est un député du peuple c'est un député de la Casamance ça veut dire que l'État du Sénégal n'a engagé aucune poursuite amul benn enquête amul benn arrestation ana kii Marius Sagna song nañ ko fi mbuur xotti ay yéreem toroxal ko gendarmerie ne pat balaa may dee ñu la gendarmerie est une institution depuis quand est-ce que la gendarmerie est une institution depuis quand donc loolu yëpp wax leen que tey su ngeen gisee man sax ma xaw a am jàmm tey man Barthélémy Dias c'est que gars yi dinañ song gaañee man man man wax dëgg yàlla man moom gars yi moom dañu pare ci suma ay bagages dañu pare ci suma ay parce que. bugguma politique pour foo ak ñoom te nag ëpp baax na ci laax bu tàng depuis la fusillade man may nañ ma jàmm te jàmm boobu moom incha allah dina continuer parce que man wax naa tribunal lu ma nagoon wax tribunal wax naa lu ma def te mais te waxaat naa tamit nee naa lu xewoon ci buntu mairie Mermoz Sacré-Cœur ñëpp dañ ko ñaawlu wante ni ñaanuñu ko yàlla mais loolu bés bu amaatee la woon fa woon ba woon na woon rek dara du fi changé parce que ñun ñëwuñu politique pour di tooñ ay doomu aadama wante du ñu nangu kenn di ñu tooñ ñun lu ñu ñor mooy Sénégal te Sénégal lu ñu gëm mooy dañ koy waxtaanee dañ koy peccoo mais kenn mënu ko aakimoo ci lan ci génn ay neex bi di jaay ñi doole donc euh, mbokk yi. xaw ma est-ce que lu ma dëkk ci wolof c'est plus ou moins ramassé